man euh, en tant que mandataire ma and ak maître Ciré Clédor avocat ak huissier de justice bi euh, dañuy ñëwone tay ci ngol au niveau du ministère de l'intérieur pour jébbal décision ba nga xamné mom le président tribunal d'instance hors classe de Dakar euh, juge Ousmane Racine Thion jël euh ñu annuler radiation ba nga xamné euh daf nañ ko Ousmane Sonko ci liste électorale yi joxe ndigal tamit ñu Ousmane Sonko ci liste électorale xam ngeen ni le euh, pouvoir a delloo Ousmane Sonko ci liste électorale ministère de l'intérieur le ministre de l'intérieur parce que vous ñuy génnee Ousmane son ci liste électorale ministre de la justice le ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur intérieur joxe direction de l'automatisation des fichiers pour mu Ousmane son ci liste électorale bi qui ko ci jaay de ak loo xam ne parce que si xam nañu ni Ousmane Sonko contumace ko ñëpp ñu ko jàppee contumace ba yaakaar ni décision honorable juge Ousmane Racine Ton jël l'air na nañ balaa moom si fay décision bu mu jëloon l'air na Sénat tamit commission électorale nationale autonome joxe injonction pour ñu appliquer décision mais malgré tout nous gis ni euh, direction de l'automatisation des fichiers nga xamné commissaire Fiacre Badiane moko ko jiite bañ dello Ousmane Sonko ci liste électorale

su fekkee ni malgré que euh, léegi politicien là, mais y a ni avocat là quand même xam na luy yoon également nekk na fi jiite na fi ay kuréel yu mat ci àddina bi yoo xam ne mu ngi jëm ci droit de l'homme ak yelleef doomu aadama donc su doon lool rek war na respecter ak yelleefu kuy Ousmane Sonko donc tey ñu ñëw nag ministère de l'intérieur mais malheureusement comme nous mu demee démb DGE

Inch'Allah, Ousmane Sonko il est candidat euh, déposons le dossier de candidature am te yaa jàpp nañ ni ak nu mu conseil constitutionnel qui ko valider inchallah donc l'ordre à la amoon lu may wax gërëm di en tout cas bu kenn découragé bu kenn diable, bu kenn tiit nous ànd dal avons nit ñi dem retirer seen carte le 25 février 2024 Nous jëlee fi Macky Sall ak Amadou Ba nga xam ne la fi

effectivement mon mooy ministre chargé des élections donc dafa war a tëddee njaaxaanaay donc tey candidat qu'il est représentant voilà war nga ko mën recevoir wala laajte ay service am moom su fekkee disponible laajte ñu recevoir ouais waaye gis nañ ñu euh, daf ñoo tere dugg ci biir ministère bi bloqué ñu euh, maanaam teg ay policiers té yaakaar naa ni processus électoral bu mu nee mom dina am organiser té lu ñu doon wax

yàlla ak dogalam tamit Ousmane Sonko dina bokk dina nekk candidat incha allah euh, euh, ma may maître Ciré Clédor Ly mu sànni ci kàddu bi yaakaar naa ni li ma waroon wax ni wax bëgg a wax ci lu jàpp ci ñoom sama dama am lu ma métti li moom moo ci yaakaaroon naa ne ñëpp dinañ am ay doxal yoo xam ne mun na bett nit ñi mun na jaaxal nit wante bu ñu demee ministre ministère de dinañ fa fekk ñu dal ñoo xam ne que dinañ fexe suturaal état bi respecté li nga xam ne moom moo di doxal état moom moo jéem bu ñu demee dañu njëkkee gis moom moo di def ay alkaati yi ne gan wante ba ñu xamee ne que ñun ñu yokk alkaati yoo xam ñu jaaxal ma la ma ne xëy na bon normal la ministère de souveraineté ah bu ñu accès nga xam ne moom mooy seen kii ah ñun dee wax dëgg yàlla ñëpp lu ñu mën a préparer.

du ngeen dugg biir ministère yéen ñu fi téye yéen lañ leen xaar ñëw ngeen xamee leen ko moom duñ leen bàyyi ngeen jàng loolu moom. ndax dina ministre bi que ne a ministre yëpp moom lay nekk ci moom xamoon na ne yéen a ngi fi balaa ñuy ñëw xamoon na ne ko fii ngeen di daje balaa ngeen di ñëw. kon kooku munoo wax ne kat du fi nekk ñëw noonu li alkaati bi wax lu leer kilifa kër gi borom ko du ngeen dégg buntu këram kon boog ñun teeru nañ leen ci njëkk wante teeru bu yëpp pour yëggali leen yoon lan la def loolu nag mu doon li ma metti ndax xalaat xaaroon naa lépp ci ñépp ba mu des yenn yi ci ministère de l'intérieur ak ci ministère de la justice looloo tax tey ma léegi nag li ma wax moom moo di que fii laa taxawoon ba ñu jàppee Babacar ma ne réew mi toll na foo xam ne ñëppay fay ku làqatoo ku sol masque da nga feeñ nekka jàpp ñépp te ñu moo xoon dañ leen di jàpp ñëpp jaar kon boog lu yàlla moo nar a defar réew lii metti na wante ñi nga xam ne que ñoom ñoo war a yori réew mi dinañ ci jàngat jàngat boo xam ne gis nañu ay luxu mbóot yi ñu dugaloon ci loi yëpp ak gàllankoor yu ñu tegoon yépp ak bépp pexe boo xam ne que nga ab saay-saay su fekkee ne que jiite na réew mi mun na ci dox wala bu jaar pour que nit li mu ne suñu destin rek la ñuy dox moom mooy fa nga xam ne yàlla moo ñu ko war a jaarale te dinañ ci am léegi su fekkoon ne dañu nekk rek dañuy jàpp sàcc dañuy naan sàcc bi moom lañ jàpp muy jël moom mooy responsable wante ka nga xam ne moo ko tijjil bunt bi doo ko complice ka nga xalaat xam ne moo xalaat sàcc bu joxe xay bi moom moo di expliqué fii ñu jaar yëpp dama ci ne tey bi am nga ci xel lu lay permettre nga xam ne lii ñuy dund yëpp lii ñuy dund yëpp responsable ñan la kenn du juum du joxoñ koo xam ne buñ ci joxoñ la léegi am na liggéey bu des boo xam ne que bii daanaka pare na man nit avocat naa ci liggéey ba xam ne moom lañ ko sonaloon léegi des na liggéey boo xam ne que dañ ko war a yeggal te liggéey boobu ci loxo conseil constitutionnel fan la ñu koy ñuy def yëpp ci dossier la boobu conseil constitutionnel bu mënul wax ne que ah xool naa télékat gis naa wax naa déedéet mënu ko wante jëbbal nañ ma ay firnde yoo xam ne teg naa ko sama loxo mun naa ci duut sama baaraam et kii bu fekkee ne que yeggul fa mu dem yëfu caay-caay la ak yëfu wëyu yoo xam ne que réewum démocratie ak réewu état de droit munu koo nangu kon boo kii day bokk loolu lañ doon dox loolu lañ doon lii lépp ci loxoom la mujj kon bokk liggéey bii bu jeexee léegi liggéey Ousmane avocat Ousmane Sonko tey la liggéey bi gën a dëgër tey ngeen xam ne jeex ba ñu jëm la muy laaj ay këyit këyit ya muy laaj bu soobee yàlla këyit yi dinañ ko doon kon na Sénégal yi xam ne que lii luy jàll la rek moom que dafay jàll dañ ciy def jàll te xam ne que réew mi la nga xam ne que la nga ñu ñu bëri ñu ngi ci suuf seen deret ak seen ñaq ak seen bakkan sax pour xeex démocratie am pour xeex état de droit am fi dégg nga ñooñu lañ fi bàyyi ñun moom lañuy ñu màggee moom la ñuy jàngal it suñuy doom ak suñuy sët loolu moo tax yoon loolu ngeen xam moo tax ngeen taxaw fii bu du woon loolu da dem lijjanti bi leneen walla nekk fi naan da gis di siiwal ay conseil de ministre ñu kenn xam xam ngeen bu soxal réew mi xam ngeen bi nga xam ne moom moo ci jàmm réew mi kon boog mënuñu ko fii lii dafa di toujours suñu borom bi day am loo xam ne day def nit ki loo xam ne que day tax bu delloo si waat xelam ci moom kon ni ñu delloo si waat xelam ci moom te xam ne moom noppi na et que lii day dem day jàll lii nga xam ne moom la ñu hérité moom moo fi nekk ñi fi nekk erreur la woon pour que suñu suñu suñu suñu réew ñu gën ko mën a ñu gën ko mun a taxawwaat gën ko mun a loolu lañ ko war a jàppee te jàpp ne que it Ousmane ba ci waxtu bii may wax candidat la à la candidature et li ñuy def ñi ñëpp munoon nañ ci sax bañ a jaar jaar ci Sénat rek ndax yoon dox na Sénat sañ-sañ ak doole boo xam ne que administration bi du jalgatee mun na ko ne jaaral nii defal yoon bu administration bi bonee bañee yoon may na Sénat ci boppam moom mu def li nga xam ne que moom les administrateurs kon loolu ñu xam ne que lii lépp maanaam dañoo ñaaw ci xarit bi rek te it jaar pour que ñëpp xam kan mooy kan képp koo xam ne que da nga sol masque que ñu bu jeex na wàcceel sa masque ndax dañ lay fay. ginnaaw jéego yi ngeen fi mu ne lañ ah, ko waroon béy béy ñëw nañu pour béy béy ak dara béy nee nañ ko ñu ngi ci dugg tey jii feeñ na ne tam ña nga xam ne que ñoom ñoo leen waroon jox ndigal ne def leen la yoon wax ñoom seen bopp ñoom ñoo ñu bañ kon ñoo ñu fas yéene ñu ñoom kon ñooñu ñoom ñoo joxe instruction kon ñun suñu dossier nag li ci des nag man DG naa fa dem dégg nga dinaa fa dem. dinaa dem DGE ndax sama liggéey service public ku ñu neex ñu terali nga dugg fa ah dinañ xool loolu fa muy mujj wante li gën a leer moom moo di def te moom gëm suñu borom moom moo di def lii lépp juróom benn fukki fan a